àndandoo dundal bisu xasa xasaayit bu Argentine 2019 loolu mooy yéeney murit yi loolu moo tax ba jëwrin yi fàggu bis yu am solo yii ngir murit yi àndandoo ci àndandoo bu taaru dem La Plata jàppandi ne biis yi départ bi Plaza Once la 8h bu ñu àggee ci 9h oto yi daañu départ ñuy sàkku képp koo xam ni bindu nga nga joxe sa numéro document itam mille pesos mooy cotisation bi ci ngay paas dem mooy it sa barkeelu ci journée xasaayit bi lu ni mel jëwriñ yi di sàkku bépp murit boo xam ne nekk nga ci réew mi rek nga daal di jàpp ci lu ni mel ngir nu jëmmal bisub Serigne Touba bi taaral bisub Serigne Touba bi di journée xasida Argentine édition 2019